auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi leen di nuyu ci ndigal ak ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba yéene yi mu fas yéene liggéey lislaam ci tollub sëriñ bi mu mën a def lépp tam tam nu ànd ko ak moom di sant nag ci mën nañu wax ne mottali liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ko doon def démb ca ngoon la gan ñi fanaan si woon muy mboolem ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci lu aju ci wàllu maktabaat ñu koy wax bibliothèque ci Sénégal ak archiviste ak documentaliste ci njiitul soxna Dieye Diouf ñu ñëwoon Touba doon ñoo xam ne nag bi liggéey bi tàmbalee rek soxna si dafa jokkoo ñoon wax ne daal ñoom liggéey bu toll nii bu buñ ko dee def ci Sénégal faw ñu ñëw joxe ci seen wàll ndax loolu mooy seen liggéey loolu mooy seen métier te yàlla dogal nag ñu xarañ ci lool di ko def fii ci Sénégal di ko def itam fu nekk ci àddina bi fu nekk ci àddina bi ñu di leen woo ñu di dem di fa def liggéey bu xarañ bu am solo yàlla dogal liggéey bu màgg bii nag moom liggéey bu Cheikh Mouhamadul Mountakha bii nga xam ne ni ma leen ko waxee mooy liggéey bi nga xam ne moo fi indi woon yonent yi alayhimu salaam moo fi indi woon nit ñu baax ñi ndax dañoo ñëwoon rek ngir defar doomu aadama yi defar leen ñu mën a defar seen àdduna waajal alaxira te loolu nag ci xam lay tegu xam bu ñëwee ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy li ko sunu borom njëkk a jox ci alquranul karim yi nga xam ne mooy mu'jiza bi gën a màgg gën a màgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngale tàmbalee alquran itam lépp di xam-xam di jàngale sayyiduna adama alayhi salaam moom itam sunu maam sunu borom ba mu bëggee bind doomu aadama mel ne dafa doon waxtaan ak malaayika yi wa id qaala rabbuka lil malaayikati inni jaailun fi l ardi xalifa ñu mel ne dañ doon waxanteek moom ne ko atajaalu fiha man yusfiku fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu ma la ta'lamun waaye lu mu ci teg wa allama aadama al asmaa kullaha kon xam-xam mooy ndey lépp mooy fondement wëpp mooy cosaanu lu ne rawatina nag diine lislaam boroom xam-xam yi nag ñëw taxaw taxawaayu yonent yi rawatina cheikhuna alxadim radiallahu anhu doon na yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ne indiwuma lu yees li bi salallahu alayhi wa indi woon rek laa leeral yaatal ko ba ñëpp man koo jëfandikoo man cee jariñu te dafa mel ne ca njëlbeen gi rek loolu la wax ngir ñu xam kii moom fu mu jëm bil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu te kon diine lislaam mooy xam-xam alquran nag mooy mooy mooy mooy moom ëmb xam-xam yépp mboolem xam-xam bu am njëriñ mu ngi ci biir alquran sëriñ bi wax ne nag dafa bëgg loolee nga xam ne moo doonoon mission yonent yi doonoon liggéeyub sëriñ tubaa doonoon liggéeyub njëriñ njabootuk sëriñ tubaa gi mu njabootam gi ak ñi mu yar ak ñëpp ñu doon ci dox ba mu yegg si fii nag moom toog toogaayu sëriñ bi benn yitte boobu mooy jàngal jàngale mooy xam-xam waxoon ñu ne nag nañ ko defal liggéey boo xam ne dafay tàmbalee ci ki dal baasin ba ca njoboxtan la loolu moom mooy buñ ban buñ bàyyi kenn ku bëgg a jàng buñ bàyyi benn xam-xam bu am njëriñ buñ war a jàngale loolu moo tax ñu tàmbali liggéey bi ànd ko nag ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngutu ci jàng ak jàngale ak ci xam-xam ñu seet nag kenn ku nekk nag fa nga gën a mane ñu jox la féetale la ko ndax dañoo bëgg kat liggéey bu noppee doon liggéey boo xam ne dafay mucc ci ayib maanaam te duñu duñ tàmbaliwaat te suuf jëm ca kaw dañuy fekk fi jamono toll ñu jël la ci am njariñ lépp tàmbalee ca nag ñun jëm ca kaw ndax dañoo bëgg indi loo xam ne lu gën lay doon ndax kat sëriñ bi bi mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñu baax ñëpp lu baax la ñu wuti raamal wara nay la fadlin musriina lahu waaye wal fadlu inda rasulillahi qaraaru ba ñëwee dañ faa fekk lu baax lépp daje ca moom kon seriñ bi nag gannaaw moo toog toogaay yonente bi sallallahu alayhi yu baax yëpp daje dafa daje ci moom kon bu ñu koy defaral dañuy tànn la gën ñu defaral ko ko loolu moo tax borom xam-xam yi nga xam ne bu ñu ko doon wax ci waxee waxeenu jamono dañ naan sommité lañ ci domaine bi nga xam ne ci la ñu yëngutu ñu tase fi démb ba tey lalu fi fanaan fi démb tey ñu xëy yendu fële ci bi tarxiya sëñ bi jox leen ndigal ñu teeru leen fa ñu def fa liggéey bu am solo biñ noppee ñëw ci sëriñ bi siyaar ko mu sant leen cant goo xam ne amul fu mu yem kon ñoom ñoo bëgg daje yaatal loolu ba ñëpp mën cee jariñu xam ne liggéey bi mi ngi nii incha allahu taala noonu lañ ko defee ci mboolem fànn yi nga xam ne moo aju ci ci njàng mi ñi aju ci wàllu alquran ji ñii lañ koy defee tànn ñi nga xam ne ñoo ci gën a xarañ ñi aju ci njàngu majalis mi nii lañ koy def tànn ñi nga xam ne ñoo ci gën a xarañ ñi aju ci université bi moom itam noonu bu dee la aju ci wàllu lislaam macha allah loolu moom mën nañ ne desu ko wuti fenn waaye bu fekkee dafa aju ci wàllu métier itam dañu seet ñi ci gën a xarañ ak seen métier yi gën a am solo ñu jàngale ko fi ndax jàng bari na ci àddina bi waaye bari na ñoo xam ne dañuy jàng ba génn ak seen i diplôme di soog a jàngaat lu ñuy def wala ñuy wut lu ñu def noonu nag dañoo bëgg a génne ñoo xam ne ñoom dañuy génn daal di tàmbalee liggéey nga xam ne moom li ñuy génn moom bu ñuy génn rek ku leen ne ñëwal jàppale ma ci liggéey ñu ñëw bu leen kenn woowu ñu liggéeyal seen bopp loolu lañ bëgg mu doon ci wàllu googu ndax loolu mooy taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaayu liggéeyu sëriñ bi al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi loolu nag kon mooy salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim man la madame Dieye Diouf di professeur ci université Cheikh Anta euh, mbooloo mu takku tey pour ñëw fii liggéey ci lu ñuy tuddee bibliothèque centrale ci complexe euh, Cheikh Ahmadul Khadim bu Touba euh, bi bi mu ko defee démb la ñu ñëw tey nag tàmbali nañ liggéey bi ci bisimilahi rahmaani rahim yal nañ ko eggale ci alhamdulilahi rabbil alamin bi dañu ñëw pour yeesal suñu njéebal ak suñu engagement ci liggéeyal sëñ bi ba anam yi mu ko bëggee ñu tërale noonu bibliothèque bi euh, mu méngoog jàng jamono ba ku fi ñëw xam ne euh, bibliothèque moo yore ab université looloo ñu tax a jóg Euh, bonjour, je suis Madame Diouf, enseignante chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Euh, nous sommes venus à Touba dans le cadre de la mise en place de la bibliothèque centrale de l'université Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. Euh, C'est un complexe qui va comporter beaucoup de structures documentaires, mais nous avons mis euh, un accent particulier sur euh, la mise en place de la bibliothèque. Euh, ce sera une bibliothèque aux normes et aux standards internationaux. C'est pour cette raison que nous sommes venus en forte délégation, des enseignants-chercheurs, des conservateurs de bibliothèques, des sociologues et des informaticiens et techniciens supérieurs en bâtiment pour mettre en place la bibliothèque de, du complexe Cheikh Al-Khadim de Touba. Merci. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man a wax ku euh, ab jàngalekat la dëkk Touba bokk ci commission enseignement supérieur Euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim euh, bokk tamit ci daayira Rawdu Rayaahin euh, lii ñu wax sànq ñi ma njëkk wax wax sànq mooy naal yi nga xam ne nii gën a am njëriñ ci complexe bi la ndaxte xam nga ci ginnaaw bu ngeen fàttalikoo defoon na ay naal yu am solo lool ay lël yu am solo lool lël yooyu nag li ko taxoon a jóg mooy wax ci affaire administration parce que tamit ab complexe daa am na ay ay loo xam ne moo ko lal te règlement am na tamit ay programme yoo xam ne nii war nañ ko def ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne ay nal yoo xam ne nii mooy li nga xam ne mooy sos daal complexe bi naal bii ñu amaloon nag tey ak daanaka tey ak spécialistes yi mooy naal bu jëm ci bibliothèque bi parce que bibliothèque Euh, mën nañu wax daal mooy xolu complexe bi ndaxte kuy jàng foo nga yorub téere jàng ay téere ñoo yor ay jàng ñi jàngale ay téere ci ne sukkandiku jàng ñi jàngal ba pare tamit buñ bëgg a xóotal li leen jàngal dañuy xool ay téere bu jógee tamit euh, ci réew mi wala bitim réew ñëw ci complexe bi tamit li nga njëkk def mooy dem ca fa téere yi nekk pour nga gëstu fa moo tax day naal boo xam ne daal naal bu amoon solo la pour def daay kaamil joo xam ne ci biir complexe bi day méngoo ak euh, li nga xam ne nii moom la ko sëñ bi bëgge sëñ Muntaxa mooy liggéey bi nga xam ne nii sëñ Muntaxa moo ko jox sëñ Ahmad Badawi ni mu ko bëggee donc mooy def loo xam ne na jëmmal complexe bi te université nag mooy mooy mooy complexe bi ndaxte bu nga demee ci yeneen dëkk yëpp buñ ne université sangam dañuy njëkk a xool mooy bibliothèque am donc loolu nag lañ nekkoon ci liggéey euh, ñi nga xam nag ñoo doon liggéey ci ñun mooy ñi nga xam ne nii dañoo jógee ci université yi gën a mag ci Sénégal ci seen bibliothèque euh, Cheikh Anta Diop Gaston Berger euh, Bambey ñëpp ñëw nañ ak direction des archives nationales ak yeneen kuréel kuréel Sénégal ak ñëpp ñoo xam ne daal affaire bibliothéca bibliothécaire moo di ci lañu yëngatu affaire documentation ak yeneen activité ñoo lëkkaloog ñi nga xam ne mooy waa Touba ndaxte waa Touba tamit ñoom tamit yàgg na ñoom ay daare kaamil si Moustapha Gata mi ngi nii am na tamit sëñ Moustapha Dieng ak sëñ Mokhtar Seck jóge daalu Mbindam ñu ñu dajaloo nag ci benn bërëb te yoo tey di waxtaan pour que bibliothèque bi nga xam ne mën nañu defar ci complexe bi nekk loo xam ne day day méngoog jamono ndax tamit aussi euh, liggéey bi architecte tamit ci lañ bokk ndaxte bu ñu ko fàtte architecte yi ak jàngalekat yi foog ñu lënk lënkoo liggéey ndaxte comme jàngalekat yi ñoo jëfandikoo complexe bi ak ñu fay jànge laaj na tamit ñun tamit en tant que spécialiste ay affaire documentation avec bibliothécaire ñu jox suñu suñuy xalaat daal pour que architecte yi tenir ci compte pour defar loo xam ne bu paree dañ ko mën a jëfandikoo donc loolu daal moo waraloon euh, liggéey bi mu liggéey bu am solo trop ndaxte ñëpp dañoo bàyyi seen yitte ñëw ndaxte comme ni ko suñu Ahmad Ba di waxee ñoom daal suñu Tuubaa ma leen ñor moo tax ñëw fi euh, liggéey euh, démb ba tey daal moo fi taxaw ñëw daal Voilà, donc euh, nous sommes à présent réunis euh, pour euh, mettre fin à une série d'activités qu'on a commencé depuis pratiquement plusieurs jours et qu'on a finalisé aujourd'hui, à savoir comment mettre en place une bibliothèque euh, centrale au niveau du complexe, complexe Cheikh Amadou Khadim. On parle bien de bibliothèque centrale pour ne pas dire bibliothèque universitaire, parce que le complexe, ce n'est pas seulement une université. comme nous, nous avons l'habitude de le dire, euh, le complexe, c'est un institut du Coran, c'est le médialisme, c'est aussi l'université. Donc euh, l'idée, c'est de mettre en place une bibliothèque centrale qui puisse fédérer en fait toutes les entités pédagogiques au niveau du complexe. Raison pour laquelle euh, nous nous sommes réunis aujourd'hui pendant pratiquement toute la journée euh, au Dara de Isbutahia pour vraiment réfléchir sur la conception de ce qu'est une véritable Euh, dans une institution comme le complexe euh, euh, complexe Ahmadoul Et les gens sont venus de partout. toutes les grandes universités du pays, de l'UCAD, de l'IGB, de l'UADB. Ils sont venus aussi de la direction des archives nationales. Ils sont venus des associations de bibliothécaires et documentaires du Sénégal. En tout cas, ils sont venus de partout et en collaboration avec les bibliothécaires et les documentalistes de Touba, Nous avons donc travaillé ensemble pour pouvoir proposer euh, un guide, on va dire ça, un guide qui va servir de référenciel aux architectes pour qu'ils en tiennent compte et qu'ils nous mettent en place une bibliothèque vraiment au normes, aux normes internationales. Parce qu'une bibliothèque, c'est des normes. On ne peut pas construire une bibliothèque n'importe comment. Il y a des euh, et nous avons ensemble euh, mis tous les critères qui permettent en fait aux architectes